cher internet public SN dal leen ak jaam li gëna a fës ci internet bi dañ koy tambaleek ak ak Gaston Mbengue mi ay audio fuité yu doy waar daal di tas ci internet bi ci digganteem ak benn xale bu jigéen ay kàddu yu doy waar lañ fa wax dem nañ fa sax ba tudd kii di El Hadji Malick fa lay jógee lu doy waar ci internet bi ab xale bu góor moo jàpp ab xale bu jigéen yóbbu ko ci terrasse dóor ko ba muy bëgg a dee vidéo yooyu ñu ngi ci internet bi dem nañ ba naan sax kii est-ce que sàkku ko tontu du forox nag waaw ndax kii di Cheikhou Gueye tontu na kii di Vieux Ba mi leen yàq lu mel ni xeme ci internet bi ñoom ñi jiite Soleil Levant xibaar bu nar a metti lool ñii di fans Mbodia Mbaye waaw ndax soxna si nee na moom ak internet jeex na tàq Abana gasi xolam moo fees rongañam tuuru nee na bàyyi na internet ndax saaga yi ñu koy saaga mbégte ci Kumba mu ndaw mi nekk ci série infidel ndax alxayri ba jib na takk nañ Kumba mu ndaw nee na jëkkër ji nag takk na xale bi gëna jongama ci Sénégal loolu yaa ko cher internet Public SN TV ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci yeneeni bés fii ci Public SN TV